Ok, salam salaamaaleykum dal sur www.igfm.sn donc tay euh, danyo am mbégte euh, contenté di dalal ki nga xamante ni mooy euh, Pape rubrique perdu de vue donc mu nek mag moo xamante ne démb wayam nek actualité ba léegi mu nekk ci album bo xamante ne bu mu génnee yàggul donc tay mu ñëw nak ñu album bile mu wax len lan moom bébép toogam ak Suisse ak groupe am bi nga xamante rek mi ngi Suisse dañuy tay euh, ci dalal bi mu dalal fi ci La Payotte donc euh, diko wax rek mu ak internet yi setan. seetaan. Euh, jërëjëf soxna mam Fama Gueye content na trop ma ngi lay nuyu du nuyu artiste ci Sénégal yëpp à travers yow du nuyu Sénégal te xam ne namoon naa réew mi euh motax ma ñëw tay fur la won dem wa waxtaan ak réew mi réew mi waaw di gërëm wa TFM ñi nga fi dalal tay fi ci bir La Payotte Mhm. waaw ndeysaan <laughs> d'accord euh, donc euh, euh, Jokko Jokko bi pourquoi Jokko nga génne benn album Jokko nga wax ñu ñaata titre la si am. waaw Jokko maa ngi ko créé depuis Suisse comme man France laa ne bi ma jógee France dama ñëw maanaam base Suisse liggéey ay Suisse monté benn groupe bu ñu tuddee Suisse African Orchestra mooy liggéey ñoom ñoom ñoo projet bu rëy def album bi nga xamante ne état Suisse ñoo ma jàppale.

la Suisse et le Sénégal C'est ce que je suis tank, fi fii wa donc thème nga développé ci ci ma ci wax bari na ndax dama ne sama jigen la ci wax jigen ñu wa ndax ñoo y a jigen ñi. ñoo a motax ma ci ndax sama na titres ci ma way sama jigen way Papa ba ndax ñom ñoma yaatal ma Suisse. Mm. Euh, mais version française le labeur. waaw way naa Alburi Njaay Alburi Biram Penda Njéeme ca Dooso wayaat naa ko way borom baax waaw way naa ndongo daara ndax xam nga ne faama njàng moo yor réew mm-hmm. waaw moo tax it euh, day baax ma way lu mel noonu daal di tëggat baliyaa ak suy sesi li lay wan musique dafa doon lu universel ñëpp ko bokk mm-hmm. baliyaa bi muy génne am succès bu ba ma ñëw suicide dañ ne ma baliyaa ñuy tëgg tubaab it daal di bind ko ci solfège di ko liir comme solfège di du côté ko mu neex nak Europe. mu nekk morceau mythique gaay yi bëgg ko ba léegi ndax am nga ay raay sax yo gagné si kii son boobu. wa ci son bi euh, jotna ci bi ñuy dem nañ fi Roumanie représenter le Sénégal Roumanie ak groupe bi Asus African Orchestra. on a été reçu par monsieur l'ambassadeur de Roumanie en Suisse à Roumanie pardon mom décoré nañu ñun ñëpp ku ci nek ni seen ci kaw décoré nañu waaye na ci bir lolu lu jitu lolu amna naa décoration fii ci Sénégal ndax suma fatuliko le président euh, Abdou Diouf a décoré en 99. Tu musique sénégalaise pour service rendu à la musique sénégalaise ngir delo ñukkal musique sénégalaise Mon président Abdou Diouf décoré néma biñu bi ba en 2012, euh, le président Macky Sall décoré le officier de l'ordre national du mérite pour service rendu à la musique sénégalaise dama la wax sank ne la femme ñun Sénégal la ñu am lepp lu ñu am Sénégal la ko mom kon boog bu ñu nekkee di dundal musique sénégalaise biti fi ba bitim rew ah, da ci bax nak kon bu le président décoré melni ni Sénégal ñoo la décoré kon bok décoration yooyu yëpp dama koy delluwaat Sénégal te xamna tay tey bu ñu xamee ñun ci wàll gi ñu yëngu musique Sénégal moo tax kon boog li ñu war nañ koo delluwaat Sénégal. d'accord donc euh, nga jóge Sénégal comme ni nga ko waxee dem Suisse lan moo mbébatoon euh, dem bobu non installé wu fof. waaw Suisse ba li gënal ma dem Suisse ndax damaa ñëw Suisse ngir féddali li nga xamante ne moom laa doon féddali ca France. ndax France ba ma fa nekkoon dama yoroon naa fa orchestre di yëngu ba daanaka 4 avril bu ma sax na xew ñun ñooy organiser maanaam ay manifestation yi foofu ak monsieur l' ambassadeur du Sénégal en France. waaw def nañ fa ay soirée tëgg fit ay soirée yoo xamante ne benn béréb boo xamante ne Youssou Ndour moo ko sosoon bu ñuy wax Jokkoo mook Valérie. ci Paris yusuf bu dégg bu déggee li dana xam ni wax hmm. ndeysaan li lay won yusuf dafa yaatal hmm. waaw wax deug yalla mu don loo xamanteni lu ñu rafetlu la ndax bëreb lu bo xamanteni yusuf nur ak ñox Valérie ñoko sos hmm. ci Paris ah ñun buñ fu ñëwé di yëngu Sénégal lañu fay fekk di fédil li nga xamanteni moy musique sénégalaise ndax ku ci nekk xam nga ne sa la am te ñun dama la wax sànq ne Sénégal rek la am fu ñu am fu ñu mën a dundal waye nak li tax ma gëna yaatal sama gëstu ci Suisse moy li ma lay wax manam yaatal li nga xamante ne mooy diggante Suisse ak Sénégal loolu bokk na ci li nga xamante ne moo sos albam bi mhm. ndax albam bi daanaka waa Suisse ñoo ma ci jàppale biñ may jàppale bëgg def ak ñun tournée may leen bay ci sa tànk balaa ñuy dem fenn nañu jëkkee Sénégal mhm. loolu daal moo tax ñu def album bi fexe nag pour ñëw Sénégal indi fi indi fi Suisse ñu liggéey ak waa Sénégal d'accord donc euh, le 4 juin euh, nga am benn after work boo xamante ne koy def comme fii si wàll euh, la payotte. nga koy defee fii la payotte. Mm. donc ñu bëggoon xam rek ndax jokko bi nga fi visiter wala dafa am yeneen sa yeneen répertoire yi nga xamante ne rek donc on nar a revisiter ci spectacle boobu noonu waaw loolu faaw boo ma ko laajee dinaa ci sawar tontu ndax xam dama la wax sànq ne la picc nga ci ko waaye xel maa ngi ci suuf mm. kon boog su ma Sénégal da ciy baax nag ma saafonte mbokk yi waa indi li nga xamantene euh mom lañu ñu liggéey foofu ca Suisse war ko mën a wan fii Séné waa Sénégal euh, muy loo xamante ne lu rafetlu la ba taxna ñu ngi ci wo Sénégal yépp te xamné li ñuy sumba tay Sénégal lépp ko mom kon ma ngi wo Sénégal yëpp ci li nga xamantene ma maa ngi koy sumb muy le 4 euh, juin di ajjuma fi ci La Payotte mo wara a fi euh, maanaam def li nga xamantene wala fi war fi génnaat yu bees wa deetal ko Sénégalais yi Alioune Kassé doomu doomu Ibra Kassé di def première partie man ma war deuxième partie xam nga fii nag kon di ci invité Sénégalais yëpp di la wan ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar dëkku aar la dëkku culture la kon su ma ñëw bu fii rafet na ma invité sama mbokk artistes yi kon maa ngi invité ñoom pappu ñoom Papa Diouf sama sama doom sama xarit di invité ba euh, nu mu tudd Waly Seck xale bi xew ci jamono di invité it euh, Titi nga xamante yàgg nañu liggéey de avant waaye di invité sama doom. borom chéri koko waaw reprise bi moom bi euh, macha allah yow bi nga toogee ba euh, déglu son bi ni mu ko reprendre hmm. en tant que jeune bokk si génération boo xamante ne sa ay sët sax hmm. way bi def plus des années peut-être que sax moom juddoogul woon mu reprendre ko way bi defaat benn buzz nit ci bëgg ko yow lan ban sentiment nga si amoon kan moom Amira waaw xanaa kontaan ci rek Fama kontaan ci te xam ne li leen doon ñaan waaw li leen doon ñaan ndax ba ñuy commencé xëy na yaatul woon nii waaye bu ñuy demee tey yëf yi dox bu mu yaatu li leen doon ñaan musique bi yaatu xale di dem di ñew di deug xale yi dem di ñew li leen doon ñaan musique bi yaatu kon bima ma son bi Amira reprendre ko mais dama def lu dul wa sama attaché de presse moma jëk won wan ne ma déglu jibril déglu xale bi limu way ma déglu ko sabaram fa daw fama sabaram mhm. dafa daw ndax kontaan te fimu way sa dafa neex li lay wan xale yi ñëpp way tension de fi dëkk Sénégal dëkk artiste la dëkk culture la wa xale yi ku ci jub rek nga gongo ñepp mëna way mhm. wa ndax dëkk art la Sénégal D'accord. donc euh, Youssou Ndour fan yi ñu génn rek mu daal di annoncé ne que dafay def benn pause li nga xamante ne mooy carrière euh, musique am. Hmm. donc yow mi nga xamante ne bokk ngeen génération su ma jumulee euh, hmm. nan nga gisee pause boobu noonu ban analyse nga si am. waaw Youssou day sama xarit di sama rakk di sama xarit de longue date plus de trente ans yàgg na mu doon ku baax dafa yaatal il a il a représenté la musique sénégalaise partout dans le monde kon bu nee day noppalu dañ ko koy nangul te xam ne danaka euh, lu bare bare ci walu musique. du mhm. deug mhm. waye dinañ ko koy nangu dama xamul nak Fama ndax gars yi dinañ ko ci bàyyi. dañ ko ndax Youssou moy sunu Youssou national. dama xamul dinañ ko ci <laughs> hein dina jafé de dina jë mënoon ko may rek mu noppalu. Uh-huh. waye dama xamul nak dama ku ci nekk ak ak yaay xam ni ngay ni ngay nga gis sa

waaw coon day nit ku baax yàlla na yaxam set doon doon nit ku baax yàlla ko yàlla yërëm te yéexunu ci bak Seydina Muhammad yàlla na yaxam set lu ne way na ko moom it waaw référence la ndax coon ba ma koy xam yàgg na ca jamono Abdoulaye Mbuub man ak moom waaw ca jamono Abdoulaye Mbuub te Abdoulaye Mbuub moo doon sunu maître lu ne way na ko fii ci réew mi waaw jongo ma del wax ne jaay sénégalais sunu gaal ak yeneen ak yeneen ñu dëgg waaw Abdoulaye Mbuub moo ñu yoroon man ak coon ñu nekk ci mu doon sunu sëriñ ñu nekk ñu dekk ay taalibeem mu jël coon indi ko Miami bimi mu cion indi ko Miami ganaw gi la jël cion yóbbu ko Baobab ndax Ablaye mu dafa newoon Sorano ba pare nek orchestre Baobab ci la jël cion indi ko man mu jël ma indi ma Miami ma remplacer cion sek. xam nga li lay wan continuation la rek ñoo bokk lepp lepp senegal la. wallahi te dara musta ñaw lepp lepp rafet wax deug yalla lan mo la gëna marqué ci mom ci cion kan cion. Cion wa. Wa cion. dafa yaatal dafa melni yusundur dafa yaatal. Mhm. du deug mhm. ndax dafa ñew dal ne dal euh, euh en cœur ndax bo né CDAO en cœur Afrique gep nga wax mhm. té loolu nak moy yaatal xamna ni musique bi mom daf ñu ci lu né way ngir yaatal motax mu né en cœur wa wax deug yalla mu doon lo xamanté lu ñu rafetlu la mhm. té xam ni euh, loolu moy moy Sénégal yaatal ak def lu bax wax lu bax du deug lolé Sénégal tay wax deug ñu jitu won loolu lañ ñu won du deug ndax nonu li suma bayiwon ak barki dem dara mës ta ñaaw mm-hmm. ma ngi dañ daan dem lente fekkalante di def lu baax di wax lu baax loolee Sénégal lu nar a ñaaw nga teg tànk ba mu rafet loolee Sénégal kon bu guccoon ñëwaatee ne CEDEAO mais ñu ànd ak moom ci loolu te xam ne loolu mooy yaatal nag mm-hmm. gunge xale yi ndax ñun suñu wàll daanaka suñu wàll woy na mm-hmm. waaye nag il faut assurer la relève barkal quran il faut assurer la rew kon mag ñi dañu jappalé xalé yi mhm. du deug ta xamné ko ci jappalé rew mi nga jappalé comme ni nga ko waxé rek euh, assurer la relève euh, mhm. wali am né kon wër wayam nekkatu fi mhm. euh, donc yow tay ban conseil nga ko jox pour nga xamantene bu ko suivre tamit gëm na ni carrière am dina mëna jëm ci kanam tan wali wa wali momit ndax sal dañu am yaakar ci mom suñu dom la yalla agalé yam bi wa suñu dom la te tagna fa tank fa baye tegon tankam té dama ko ndaw ndax xam nga lutax Euh, dafa social moom Wally te Sénégal dañoo soxla loolu kuy dimbale waaw Sénégal benn bopp rek kenn mënu koo xar ñaar mhm. ko tane sa morom na nga ko dimbale du dégg dañuy mottalante rek kenn matul dañuy mottalante rek kon boog bu Wally ñëwee tey doon sunu doom ñëw di jàppale askan wi dañuy def lu lu rafet la ko te xam ne euh, loolu mu loolu mu wane noonu euh, ku ci nekk fa nga ne war ngaa taxawee ndax sénégalais foo mën a nekk yaa fa ambassadeur u Sénégal yaa fa représenté Sénégal mhm. yoon bi référence la mi ngi dimbali doomu aadama yi te Sénégal dañoo soxla loolu nag dañoo soxla loolu Guèye dañoo soxla loolu wax dëgg yàlla. d'accord lan mooy sa ay projet waaw projet yi nag mooy xanaa invité Sénégalais yëpp ci li nga xamante ne moom laay tëgg fii ci biir Payotte le 4 juin ajjuma lay tombel ñu ngi tàmbali 20 heures la ñuy commencé ba 2 heures du matin ñaari orchestre la ñuy teg. entrée bi ñaata la. entrée bi ñeneen de maanaam euh, buntu yi moom quinze bi la ñu wax. waaye prévente dix mille la dañ koy yombal <laughs> waaw di invité Pape Diouf di invité Waly uh-huh. xam naa ni le roi du mbalax du mën a ñëw waaye bu ñëwee sax <laughs> bu yónnee sax doy na bu neex waaw Youssou moom <laughs> waaw waaw waaw bu ñëw la loxoom ñëw ne ko jibi nee na yaay doomu ndeem dem ca Médina ñu bokk suñu Médina uh-huh. boo ñëwee na sa loxo ñëw waaw na ñëw na loolu la sama rakk sama xarit la ak a baax te yaatal uh-huh. ndeysaan album bi muy def Égypte daf ma aw caa woo mm-hmm. ndeysaan woo ma ca France ma ne ko mu ne ma lu ma bëgg dégtul ñëwal ma ne ko mënu ma foone mané ko maangi ni ndaysan munuma jëlal auto ñew ma jox fekk ko tubaab bi wër ko xam dañ ko fonk mo kilifa la mm-hmm. ñu tok munuma jifam lu ma la bëgg a déglu ma ko lan la yusuf munuma ne ma ma déglu as Égypte album mané ko yusuf li neex na dé wala lii kañ munum li la bëgg gënné wayé dama bëgg nga japp ci ndax yaay sama mak tet ma dar munuma mu jox jox ko casque yi mu jox ma casque yi mo dugg studio ba mm-hmm. wàcc Cheikh Ibra val Cheikh Ibra val kam gam la cheikh ibrahim al babil muridina mané yusu li neex na mu ma jappal ko fofu rek jibi mu don lu reuy album bi genn rek don succès bu reuy reuy reuy grammy awards aux états-unis mm. lolu sante yalla lay walay mhm. alalu senegal la yusu yalla yalla deugal taxawam ci bak sayidina muhammad barka qur'an dafa yaatal mm. lan lañuy tejé waxtan bi hein lan lañuy tejé waxtan di len gërem rek di len gërem te xamné euh kenn mënul koy jappalé ko fi né mm. te yeen nga bay seen wal nak ci war bi ndax ñun dañu soxla liggéey mm-hmm. dañu soxla li waaye Youssou ko ca kanam sos la mu sos ngay jàppale ko nag du dëgg te loolu dañ koy rafetlu ndax jàppale Youssou nduur mooy jàppale Sénégal mooy jàppale Afrique mm-hmm. du dëgg mm-hmm. lépp Sénégal ca kanam mooy loolu mm-hmm. ku ci ne fa nga nekk na xëcc rek jëm ca kanam waaye def lu baax wax lu baax lu nar a ñaaw nga teg tànk bu mu rafet mooy Sénégal du dëgg waa Sénégal day lu ñu bokk waa daju lu ñu bokk kon doon li nañ ko rafetal nañ rafetal loolu Sénégal wallahi wallahi di leen gërëm yéen fii ni ñu fi teew maam Fama yow it di leen gërëm bu baax a baax a baax waaye di gërëm Cheikh di gërëm it ñëng jaam sama jaamu séeréer bi cey la kii dinaa ko dóor de dinaa ko dóor ba diri ko yàlla yàlla defal jàmm ci barke Seydina ma ci gërëm Sénégal gi yëpp di leen woo nag maanaam ci sama sama soirée bi na ñëpp ñëw te xam ne yëfu Sénégal la waaw waaw waaw ñëpp ñëw kat le 4 juin fii fii ci biir Payotte ajjuma lay doon vingt heures ba deux heures du matin ñaar Alioune Kassé momi di sama colère bayam ci Ibra kasse cœur de la musique sénégalaise mm-hmm. di gërem ñep di nuyu Youssou sama doomu tay est ce que doñu may ben ki way bu ndaw rek lu lu bëgg bu ndaw rek baliya <laughs> baliya ah, ni me ko lan day wëreef lo am bok ak ñoom eh. top to ñoy sende gër lay kon fa war na baliya ah, baliya dox mbokay li am solo bul ko gatañ lo nemeku leen day wëreef loo am bokk ak ñoome dara adduna juboo ci am solo kon ànd war naa lépp Sénégal la yàlla yàlla defal jàmm. <laughs> merci beaucoup di gërëm it Sidi mi nga xamante ne mooy borom di gérant bi doon ku baax Sidi mm-hmm. Sène mm-hmm. di jàppale artistes si nag mm-hmm. moo Pape Dioum dama leen di gërëm ndax mënu maa waxtaan ci biir payot te gërëmu borom kër gi di Sidi seen ndax dafa yaatal di gërëm it Pape mi nga xamante ne xaritam la doomu ndeyam la bu di ko jàppale ci liggéey lol lepp senegal la soti def ci lepp senegal ko mom mm-hmm. kon yalla yàlla doolu jam ci barke mohammed jere jërëjëf Guèye kontaan na internet euh, IGFM ñong leen di jaajeufal ñoo nekkon nak euh, ki nga xamanteni moy euh, papa jibiba donc mu nekk ko xamanteni comme ni ko waxe won sonk mu nekk tenor ci musique sénégalaise donc di leen jox dig dajje ba benen ak kenen merci beaucoup.